yëkkati dëddu ba nga xam ni su yàlla dogalul nga di borom dignité xemmem loxo ku ne nee na dina yëkkati tabe ne koy joxati danga koy jënd waaye jokk bokk taxul neen daan dem ba yëkkati alquran di ko jàng rek te duñ ko jëfandikoo dana daan dem ba yëkkati lislaam nit ñiy jullit te duñu jullit nga bala ko wërsëg a gaañ mu gis ko doomu aadama bala ko wërsëg a gaañ mu gis ko ndax Sayyiduna زين العابدين yal na yàlla yokk ngërëmam ci moom dafa dugg ci benn bitik fekk it yi lee ngiy jot si jënd nag lu nekk pour njaboot gi ba benn waay dugg si ndax dégg ko mu dégg ni mi ci bitig bi te mu bëgg ko xool te kooku du jullit mu di ko xool bëtu boo doon jullit xam naa sang ba Zeynul Abidin xam bët bi ko waaji xool mu ni waaji yaram wee nekk ci boutique bi de wante xol bi nag moom ma nga ca malakoon waaw rekk am solo ظهرات مو اللي امصلو جلت نت كان كان تروكو يو يو ابل لنكو تري ويو daan wax ni bu mbooya dikkatee da fexe ba xale yeeg jigéen ñi bañ ko yëg ndax nee na mbooya fuuf te ndi ko jahannama la maanaam waxin la ci ni làq sa njaboot ba du ñu yëg lu metti kenn ku nekk war na nekk sa yitte waaye yàq sa njaboot nag moo bon làq sa njaboot ak yàq sa njaboot du benn waaw ñu ñaar ña kon bu sama moo ko nettali te dañu nekk ca daara ja di jàng ne ba mokkal ñibbi nee na kenn ki dem ubbi boutique kenn ka dem wuti mbooloo nee na ñu toog ba jëmmi jamono ki wuti mbooloo mi tabarkal la am ay taalibe jël ca kenn ni ko amoon naa mbokkum daara léegi ma nga ca dëkk sàngam ubbi na fa butik di jaay soo demee nga waxal ma ko ni ko na ma ñaanal digganteem ak boroomam daa dafa am lu ma yëg ci sa bopp waajaa ngi ci butik bi mel ni ñépp mu ne ah waa du sama sëriñ dafa juum kii naka la koy ñaanale te kii mi ngi ci butik bi di jaay ak di jënd waaye mu ñëw rek ni ko man de taalibe diw mu ni ko ah, ma nga fay bëgg àdduna rek waa ji jaaxle ndax sëriñam niruwu ko ku bëgg àdduna te ki ko koy wax moom mi ngi ci butik bi di jaay te bëgg àdduna nga yem ci jaay ci butik mu jaaxale ci nag mu ni ko soo demee ni ko mënuma ko ñaanal tànk li ci xolam génnewu ko dafa bëgg àdduna ba mu ëpp te jotu ca loolu tax ku mu gis jëppi la boo ko teg jàngoro ji mu amee mu ne ko bu ko bàyyee nag naa ko ñaanal pour woon la ni rek doomu aadama baatinam rek moo am solo solo